kooku laa am man je suis apolitique dama gis sama jëkkër sama xarit sama frère nga xamante ni moom ba dara dul dara la wóor nee naa ko man dama jàkkaarloog moom période combat ma ne ko guy mu ne ah ma ne ko man maa lank maa lang langal du ma ànd ak xale bu amul caag ndax damaa ragal defet bugguma defet mu ne ma léegi lu tax ko wax loolu ma ko ko bugguma defet ndam rek te yàlla def mu ñëw indil ñu ndam yàlla ndam jik mu nekk ay ku ñàkk ki ñaan loo yor mayee ko xaalis yoral nga ma 35 mille yoo xam ne junni nga ma ci avance mu nees meli léegi man fenn tax fay ma kañ nga may fay Sada waxal loo bëgg a wax Sada merci beaucoup voilà léegi